comme ni ma la ko waxee léegi ci Gladio yor ay arm fas yéene détruire peuple yi fas yéene piller seeni koom-koom ñi yor arm yi gën a nag mooy deuxième partie bii ñaawteef yi yëpp ñoom ñoo koy def ci turu l'islam lii nag boo ko xamul danga naan l'islam la mais moom premier ministre boobu ñëw fii di wax ñaawteef fii ñu def ci Afrique France def ko fi rey gi ñu rey xasaab yi rey gi gi ñu rey nu mu tuddati suñu waay ji jàmbaar jooju nekkoon Burkina Faso Thomas Sankara ak ñeneen ak ñeneen loolu France moo ko def France moo fi nekkoon di rey suñuy maam Cheikh Omar mii ñuy wax barki de mu naan dañ koy indil jaasi jaasim ji ñan France a war a France lu ko jëlee France ba fii muy rey suñuy maam kon ñooñu ñooy les véritables terroristes bu fekkonte ne France amoon nañ maandu gu toll ni toog ci seen réew bàyyi sunu maam yi fi nekkoon ñu toog ci seen réew tey du fi ñëw naan day indi jaas jaas Cheikh Omar loolu l'injustice la boo xam ne le peuple français ñoo ko créé woon ci turu France man sax maa ngi tooñ France ndax France dafa am France en tant que peuple am France en tant que oligarchie masonique mondialiste oligarchie maçonnique mondialiste boobu del suivre bu baax li ñuy tuddee les gilets jaunes da nga gis ne kon euh, doomi français yi ak seen bopp commencé nañ bi yeewu nii nu def ñun sénégalais yi def ko africains yi noonu lañ def les français ñi koy def nag benn oligarchie maçonnique la boo xam ne xeet yi commencé nañ di leen comprendre kon ñoom ñooñu ñëw di wax terroriste dama doon wax jamono bu nekk ni ne ñoom ñooy les véritables terroristes lu askanu doomu aadama di daj ci kaw suuf tey ñoom la loolu rek laa ci am lu may wax bu ko defee nit ñi nañ yeewu te xam ne eh, diina ji ñuy tuumaal di ko taqal muy lislaam diine jàmm la wallaahu yad'u ila daari salaam dafay woote jëmee ci jàmm bi ngeen ñëwee léegi lu ngeen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah da ngeen ñu ñaanal jàmm ñu delloo leen ñaanal leen jàmm waaleykum salaam wa bi ñuy julli bay sëlmal lu ñu wax waa asalaamaaleykum wa rahmatullah ñëpp waxandoor ko waaleykum salaam wa rahmatullah kon diina ji du diiney fitna du diiney jaas yi du diiney noonu ñu ko bëgg wane di ko caricaturer pour fee fee maanaam euh, euh, dawloo ko doomu aadama yi déedéet lislaam diiney jàmmu la am na nag ful la ju toll ni euh, ni muy màggee di dem boo taxawee ne ko doo dem yëkkati safara xëpp ko ko mu delloo la safara wa waaye du taal kenn moom islaam moom du mos a taal safara xëpp ko ci kaw kenn guerre yi fi nekk yëpp ñoom ñoo ko taal commencé ci Algérie ay élection législative yoo xam ne yu jaar yoon la fils remporté ko plus de 72 pour cent ñu confisqué ko créé vide constitutionnel ngóor sa fa nekkoon ñu xëy xëy nangu présidence gi ci loxom jaarle ko ci fenêtre wéele ko l'armée bi nangu victoire boo xam ne le peuple algérien ñoo ñoo ko def ci seen volonté populaire loolu moo jur mbir mu foofu ko foofu ko tooñ ndax lislaam a tooñ wala lislaam lañ tooñ mais ba tey dañ naan lislaam wax nañ leen fii léegi ñoom Jamal Zeytouni ñaawtee bi ñu doon def yépp l'armée algérienne moo ko doon def en collaboration avec l'oligarchie maçonnique française ba nga xam ne moo nekk foofu France ko defee ko lii moo fi nekk ko defee man daal li may ñaan ndaw ñi mooy ak mag ñi ñëpp nag nanu gëstuwaat bu baax mbir yi di ko delloo ci seeni cosaan Irak lu ko taal ay ay nar yoo xam ne fee lañ ko nasee ci ci États-Unis wane ne sa dàmm ngi ay arme euh, nucléaire bañ demee ba def ci ñu def yëpp démentir seen bopp ne dara new fa Syrie lu ko taal nafsu say Libye lu ko taal nafsu say nii la demee nag partout hmm? les frères yi nga xam ne barki démb ci Égypte ay élection yu moom Mursi élection yu jaar yoon kooka taxawal projet de société ci turu société bi nga xam ne ñoo ko élire ñu xëy xëy nangu foqar ñi pouvoir bi ci loxoom rey ci ñoom lu kenn xamul nam toll kon ñooñu ñooy terroristes yi nit ñi yeewu ñoom ak seen bopp ñooy terroristes yi fim ne nag dafa jot ci la peuple africain le peuple en particulier le peuple sénégalais ñu yeewu structuré wu ci seen biir baare leen la route nii ma gis nag ñu fas yéenee jël jullit ñi bëgg leen a fénqale mu neen ñuy tojantey bopp ñoom ñu mën a dugg si damay attire sama attention di attirer attention kilifa diine yi ne loolu buñ ko nangu